bismillaahi rahmaani rahiim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokk ñi déglu assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar allahumma innaa nasaluka xayra maa fii hadal yawm wa xayra maa ba'd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 jaajëfal sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaan la ko tawfiix ak teraanga def dara sëñ noo ngi ci koor noo ngi ci fan yu jëkk yi ñoo ngi ci aay ji ko borom bi jàngalee tabaaraka wa taala ca albaqara waaw ca albaqara tolloon ci ku feebar ku tukki ak ku ca lottu ndaxu mage ñoom ñépp sunu borom boole leen fidya euh, euh, fa iddatun min ayaamin uxar kee mu ne fidyatun taamu miskin aji woor ji tëlee woor ñu ne ko joxal miskin jigéen ji am doom ñu ne ko joxal doom ji ween te bàyyi koor gi ba ba feral wala bokk ba di jël waaw fii quatre mois jàpp cinq loolu de waroon naa mokk ndax danañu jàngal mbirum social war naa mokk ndax danañu dugal ci wàllu humanité te loolu réew daf ko soxla réew daf ko soxla mbokk yi xoolal jigéen juy nàmpal bébé amagul quatre mois sunu borom ne ko lebal naa la koor gi ndax bébé loolu njàng mi ci nekk su mokkoon bébé yépp am jàmm ndeysaan bébé yépp am jàmm waaw parce que démb wujju nogay <laughs> daa jàpp doomi nogay yeew wala boog bërki démb seen ngeen jigéen ju njàpp ñaari gone lënkale leen yeew filmer leen yónnee ko àdduna si yëpp <clears throat> ne leen nii laa def gone yi te gone yi amuñu bakkaar gone yi lu ñu def ci safaan walla xamadi la ko doon tudd du ko tudde réew xamadi lay wax ndax dafa xamut moo tax wolof tudde gone gone ndax ku neen ci seen biir bu amagul tur ñu tudde ko liir te liir mooy leer waaye ci koor gi xoola cër bi ci yàlla jox gone yi ñaata jeeg fi ne ñooy nàmpal amaguñ trois mois ci réew mi moo tax loolu tam li fi nekk ci tuyaaba ku ko xamoon saa boo fere lay jëlaat ëmb kaar kaar malheureusement kon bébé yàlla jox na ko ci koor gi foofu cër bu rëy ne yaayam lebal naa la koor gi ginnaaw amagoo quatre mois wala ëmb bu bees la yor docteur bi yëg ne kii xiif baaxul ci moom bébé boobu ñëwagul àdduna xaat sunu borom sédd ko ci koor gi lu tol mi ak ni koor rëyee sunu borom sédd bi moomu ci koor gi lu tol mi ne yaayam bul woor ndax boo wooree bébé mën naa loru ndax docteur bee ko wax yooyu ci koor su mokkee dafay amal solo penc mi lool te su boobaa xale yépp ñooy am droit yoo xam ne lislaama leen ko jox te ni mu leen ko joxe moo ëpp foofu ne leen ko convention yi di joxe waaw loolu jar naa taxaw lool muy jigéen ji ëmb walla jigéen ji nàmpal waaw lu am solo la waaye taamu miskin miskin mooy ku amut ba mën nga ne mi ngi yalwaan xoolal ñi munta woor ñépp buñ dajalee seen mudd seen mudd walla seen fidya jox ko miskin yi miskin yi am dara ñi nga xam ne dañoo jabet ba mënuñoo woor ña am ulcère ba mënuñoo woor ñi am nangam ñi am nangam ba mënuñoo woor ñooñu nga xam ne ñi ngi ci xeet wi mënuñoo woor walla ñi mage ba màggat ba toll ne bay bay yal na ko yàlla yërëm waaw mu ngoog ñoo ñëpp buñ dajale woon li ñu am buñ ko joxee miskin yi miskin yi am dara waaw taamu miskin hmm? waaw taamu miskin mbokk yi koor jot yàlla moom koor gi nga tële woor mu ne la defal ci sa mbokkum dëkkandoo wala boog defal ci sa mbokk miskin waaw am na solo de te àdduna euh, yuntale Isa daf daan wax ne ñaar rekk fi nekk mooy action waaw aqimu sala wa atu zaka moom la ne wa kaana yamur ni bi salaati wa zaka maa dumtu xayya asalaatu sa digganteeg sa borom la azakaatu sa digganteeg sa morom la lu rek la moo tax bind bi am na solo lool ndeke koor gi ci biir yàlla ngi cay jàngale ñuy jox miskin mës naa wax ci waxtaanu fajar yi bu assemblée woon bu assemblée député ya ñoom xaaji Moustapha Niass ak gaaya fa nekk yépp di ko jàppale ñu wate benn loi boo xam ne bi réew mi yépp dañ naan litre essence bu ne yokk nañ ci ab dërëm waaye miskin ko moom handicapé yi litre essence bu ne yokk nañ ci ab dërëm litre gasoil bu ne yokk nañ ci ab dërëm ñun ñépp ñu dëppoo ko dërëm ya génn ñu teg ko ci loxo yi miskin yi yalwaan mi wàññeeku yalwaan mi wàññeeku lool te su boobaa ñun ñëpp ku jënd essence rek saraxe nga ku jënd essence rek saraxe nga waaw pinc mi dafa am yoo xam ne bu ci nose woo rek nun ñëpp nu dem monsieur le président de dafa am yoo xam ne bu ñun ci noso woon ànd ci ñun ñëpp rek rek la yu bari waaw rek la yu bari xoolal loolu rek te kiy jënd du ko du ko yëg ni ñuy teggee yaay yi ci yëf yi nun lañ koy teggee rek kenn du ko yëg mu am genn kees sunduuxul birri wal ihsan peut-être moom lay tudd <laughs> waaw peut-être moom lay tudd ñu teg ko ci loxol koo xam ne xelam xalaatu di ci lekkub junni waaw xalaatu di ci lekkub junni waxuma laa di këpp kees ga ndax lu waaye lekk mën na laa jóg waaye dërëmu miskin ey eh, bu ko lekk xam waaw borom bi bi mu santee ña néew doole ca koor ga ci maa ngi naan xanaa ku joxe six cent mu day ñu naan ka naa ko joxe cinq cent mu doy sunu doyen Hadji Moustapha Guèye defe naa ne bokk na ci ñi wax ne ku ko jox mille francs mu day waaw ndax nee na ñaari kilo ceeb ku ko jox nit bu jaayee benn ba man koo toggee benn ba waaw ala kulli xaal su ñu nee mille francs ne mille cinq cent ne six cent nangam sunu borom daa bëgg ko wax ne ki li muy def wóor na ko dana mat. fa man tatawwa xayran mooy su joxe woon mille cinq cent génn ci coow li deux mille waxi noppi te deux mille francs par jour soixante mille dong la yombul ñëpp nag waaye ki ku mënul nag day wàcc ndànk-ndànk rek ba baa muy agsi fi nga xam ne fa la yem waaw loolu mooy yëf yi donc soo seetloo kafaara gu ma sa am walla fidya suñu borom day joxelu aw ñam walla mu joxelu yu ni demee waaye fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun lahu waaw ku coobarewu yokk yokk ga nga yokk moo gën ci yow lislaam laaj la mille cinq nga joxe deux mille mu ne fa huwa xayrun lislaam laaj la deux kilos ceeb nga joxe trois kilo fa huwa xayrun am na ñoo xam ne dañuy jënd saakob ceeb ak fukki kilo boole ko muy soixante waaw am ñoo xam ne leen la ñuy def waaye suñu borom dal ubbi na buntu fa man tatawwaa xayran fa huwa xayrun ndax weer wi weeru promotion la promotion boo xam ne bi yemul ci euh, quarante pour cent ki soixante sept cent pour cent la waaw sept cent pour cent la ndegam ëpp ko waaw ndegam ëpp ko fa man tatawa xayran fa huwa xayrun la wa an tasumu xayrun lakum in kuntum taalamuun bu ngeen amoon xam-xam nag da ngeen xam ni jéem a wóor a gën walla wóor a gën su ngeen amoon xam-xam ndax koor li ci nekk ci liñ ci xam ci bitti liñ ci umpale ci biir a ko ëpp xam nga weer woo xam ne dañ la ci la wàcc weer woo xam ne dañ na la ci la alxuraan wàcc alxuraan doon loo xam ne kum laal nga am barke ku ko laal am barke maa la ko wax de wa innahu la zikrun laka wa li moom rekk moo fii sa teraanga ña ca nekkoon bañ jóge àdduna ba léegi teraanga yaa ngay continuer waaw ñi nekkoon ci alxuraan biñ jógee àdduna ba léegi teraanga yaa ngay continuer di teral seeni bokk wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ndeysaan waaw waaw wa innahu te koor li muy def ci nit li muy def ci nit euh, la ca la ca gën a feeñ di lenn képp muy laalakum tattaquun waaw laalakum tattaquun loolu rek jar na di woor jar na di jàngal xeet wi di woor jar na di jàngal gone yi di woor ndax jom daa baax lool ñàkk jom baaxut jom dafa baax lool ñàkk jom baaxul koo xam ne saabu bu nga yuuxu lislaam bëggul ku mel noonu waaw sunu boroom bëgg na ku xëy xëy wala sina jaadu fii naa waaw sunu borom loolu la bëgg ku xëy xëy xam nga léeg-léeg ñu ne la dañuy danañ créer ay ay liggéey waaw danañ yi ay liggéey waaye nit ñi li ëpp ci ñoom am na ñoo xam ne am nañu métier nañ leen ko sàmmal bañ man caa tedd ñi amul métier nga xam ñoom dañuy wut liggéey ñu ne lu ñu am baax na ñu seet ñoom nu ñu leen di def ndax dañ leen defal formation ba noppi nangam ala kulli xaal sunu njàng mi su fekkoon ne formation dugg na ci bu jëm ci wàllu professionnalisme wala professionnel defe naa loolu la wax waaw defe naa loolu la wax waaw ngoog formation professionnelle su fekkoon bi gone yu toll ci jàng bi ñu amee BFEM rek lañ tàmbalee jàng mbirum technique tàmbalee jàng mbirum liggéey yaakaar naa ne duñ soxlaa dem ba màggat door di wut liggéey ko wër la nga dëkk gone goo xam ne ngi ba nga ko xamee ba tey musoo koo xam ci mu xëy waaw am na ci suñu jëppal gële ndeysaan nga xam ne ba nga xamee ba tey mosoo koo xam ci mu hmm? kon kañ lay samp kër kañ lay takk jabar kañ lay ami doom lu lu lu yërëmtalu la waaw déggoon ngeen sama kongare ba maa gone ya ca bañu président abalee <laughs> Sall Sall Abdou Diouf ba leen nekk jam ñaajo yàlla na ko yàlla yokk wér mas naa dégg soxna suñu wax xaar mbay ma jaaga lu ko yàlla yokk mu ne gone ku juróon yërëm leen mu ne ko lay wax nga dëgg wax nga dëgg de ak yërëmtalu hmm? waaye koor a ngi fi di jàppale ñépp ma ne wér-gi-yaram gi koor di def ak euh, temps bu yaatu bi nu koor di may sama marché bi ma doon woote ba fi nekk nii ndaw ko ndaay dégg naa dañu may dañu may opposé ndax dama ne woon nañ dem assemblée député yi wateel ñu euh, unique repas <laughs> waaw wala deux repas ñu jële fi añ di ndikkee carrière naka ma ko wax rek ndeysaan àgg ca kër ga imaam lay Ndaw ma gis téléphone bi di sone ma ne du ma ko jël parce que xam naa ne xam naa ne yëf projet bi ba moytu du sotti waaw waaye koor lu baax la waaw dégg naa al imam Makhtar Ndiaye ci liberté euh, six yu am solo mu ci indi barki démb waaw soxna Ndeye Mariam la na ko wa an tasuumu xayrun lakum waaw boo demee ci ñoom Baye Umar Gueye yal na yàlla yokk yokk wér ñoom ñi nga xam ne seen association bi bi saytul ak a jàppale jabetkat yi ñi jabet dafa am yoo xam ne boo ko seetloo koor la ci ñoom régime ak koor dong la bu lekk lii bu lekk lii waaw moytu lekk li et cetera mu ngoog mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ak seen njaboot wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamuuna bu yàlla mu ne bu ngeen xamoon li ma xam da jéem da ngeen woor waaye am ci lu am solo lum ca teg mooy weeru koor ci la alxuraan wàcc weeru koor ci la alxuraan wàcc hmm waaw waaw luy alxuraan alxuraan benn téere la ay wax la yuñ wàcce woon ci sallallahu alayhi sallam mu jàng ko jëfe ko gën ñëpp daal di koy jàngal saxaaba yi ñu jàng ko jëfe ko gën ñépp taabi'un roy leen ca asalaf saalih roy ca ba ñëw ci réew mi alxuraan di téere boo xam ne bii mu ko waxee démb ca tafsir ba nit ñi dañ ko bëgg aj ba mu tiim nu nu nekk ci suuf muy dem nuy dem bu ko defee kenn du gis sa bopp ci moom kenn du corriger sa bopp ci moom dañ koy bàyyi noonu rek def ko téere barkeelu di ko def ci néeg yeeg armoire yeeg di ko décorer suñu néeg yeeg di ko def ci oto yi ndekete moom loolu tax ko woon a dikk li yuxrija naasa mina zulumaati ila nuur moo ko taxoon na ñëw ci weer wii la alxuraan wàccoon shahru ramadan allazi unzila fiihi alquran ci la alquran wàcc nekk téeméeri saar ak fukki saar ak ñeenti saar benn xaaj ba wàcc ca màkka benn xaaj ba wàcc ca madina ba wàcc ca màkka di defal di defal nit ñi ay changement ba wàcc ci madina defal nit ñi ay orientation ba changement ye motee ca makk yaayu naasu nangam yaayoo naasu nangam yaayoo naasu nangam dañoo daal di tuxoo ca état booba dem ci feneen dëkki fa foofaa nga tuddoon al madinatul munawwara léegi changement yi jeex na orientation yi moo ci des naa naasu daal di xewi yaayu si na amunoom lu ma la ñu indi léegi waaw yaayu li si nangam ëpp naa def yaayu li si na amunu nangam ëpp naa ñàkk def waaw kon ci weer bi lañuy ñu wàcc alxuraan bi ko aleyhi salaam jàngee ca xonti ma ñibbisi tàmbali ko jàngale muy dox ba ñëw ci sunu réew mii mu di ko jàngale fi ñu koy jàngalee ñu tudde ko daara fi ñuy jàngee mbirum tubaab ñu tudde ko école daara di dox nag ak i pexe boppam ba am résultat yi mu am waaw ba am résultat yi mu am xaj Abdul Aziz daana wax ne àlliwa moo ëpp barke kaye mu ne àlliwa moo ëpp barke kaye ne rëpp ci suuf di jàng moo ëpp bar moo ëpp barke ne toog ca kaw di jàng waaw ci xeeti barke yi hmm? alxuraan a nga noonu Euh, tabarkàlla gën téere yépp fees dell ak njëriñ lu ne mu joxoñ ko jommal ñam doon wàcc ba ñu defe na ay taaxuraan la ndax neex waaw tabarkàlla bu koor masaan ñëw alayhi salaam da koy jamante ak jibril jamoo mooy lan mooy boo demee daara soxna Adja Binte caw ci xale ya mokkal léeg-léeg day indi fukki xale ñu toog ci xale yu jigéen ya mu ne kenn ki acca tàmbalil kooku daal ne bismillaahi rahmaani rahiim wa shamsi wa duhaaha ka ca ndeyjooram ne ko wal qamari izaa talaahaa kenn ka ne ko wan nahaari izaa jallaahaa kenn ka ne wal layli izaa yaxshaahaa ba ci ki tàmbali woon ku jàng aay rek jox sa morom kee jàng aay jox morom loolu ci tuddee jamoo daanañ ko def ca daara ja Ajaa Binta ma ngi koy doxal ba léegi ci daaraam jii di ummul mu'miniina ci euh, Padoa la ko yàlla yokk wér waaw la ma gis na ko ma gis ko ne ko mbaa sa càmmiñ yëpp melul ni man ndeysaan am sa jigéen te doo ko seeti mukk ma ne ko mbaa sa càmmiñ yëpp melul ni man ndeysaan waaye tabarkàlla xaar mu foofu rek ba cinquante deux milliards yi ñëw naa la ci sëqal waaw <laughs> dompal ci nogo yi <clears throat> chahru ramadan allazi unsila fi l quran alquran lu lu muy wut si hudan linnaasi alquran dafa ñëw hudan linnaasi waaw cey loolu den taxaw bu sabab yàlla daañ taxaw ci hudan linnaasi bu nu yàlla may dund ba ëllëg daañ taxaw ci wa baynaatin min al huda wal furqaan incha allah yàlla ñu yàlla sàmm ba suba tëñ weesu ko yal na yàlla nangul nu sunu koor nangul leen yal na yàlla def jàmm ci réew mi ak réew yi ko koo xam ne boo amee doole lislaam am doole yàlla na nga am doole ku sa doole yi néewal doole lislaam yàlla na yàlla néewal say doole ak seen for yëkkate jotaay bi ndax sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi toi firiñ fàncal ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yenn ak suñu technicien bii ak suñu àndandoo bi di c 3 dégg ngeen wooteem bi muy woote nun ñëpp a ca war a dem incha allah subhanahu wa ci biir réew mi ak ci bitim réew waaw waaye nag nu bàyyi xel ci eh, li fi li fi xewoon tabarkàlla yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara kenaan doon coxtaan mooy di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tataatu wa illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu